jërëjëf amadou xam naa sax sha allah bu fi yamone rek mu neex comme ni nga ko waxee xanaa lu mënta ñak rek day am comme ni nga ko waxee monsieur le maire mo fi yebal ndaw yi tay ñew fi te du bulet ndaw yi fi ñew nak jóge ko ci commune lat mengé ci tank monsieur le maire si jital amadou Diop mi nga xamne ku xam Thierno sire Diop. di sëriñ bu mag bu nekkoon lat menge moom mooy way juram kon kay xanaa cër la rek bu muy joxe waaye lépp lu ma mën a wax mun naa wax lu ko ëpp waaye nag comme ni mu ko waxee ah, li mu wax kenn mënu cee teggi dara moom moo jiite délégation bi ànd ak chargé de mission maire ñu koy wax Abdoulaye Sène di suñu goro xam naa moom su ma ko waxee moom jañal yëpp xam nañ kan mooy Abdoulaye Sène ànd ak suñ mbokk suñu xarit suñu wëllëre muy Sidi Ñing ca lat ménge nekkoon jàngalekat mu jige mu nekk ci biir administration ba yàlla def mu retraité moom ci délégation bi la bokk mu ngi ànd itam ak ku ñuy wax Omar Sow mu ngi ci kaw tànt bi ci ginnaaw fi ñu toog ñu ñu la maire yebal ne leen demaleen ma jañal fa ngeen doon dem su ngeen fa fekkee fekkal ma kama fa neyal muy alaaji fay ndax kat mom moy suñu conseiller représenter maire ci dëkk bi mom rek suko joxon cadeau kàddu gi doy na waaye itam day baña jël cadeau gi ci sama kanam way lool yépp cër la maire néna na gërëm na waa Jañeel sant na waa xew-xew bu waa Jañeel di def tekkul fa tankam ñak pexé la ndax ngant nekku fi motax tax mënul ñëw way ñun xam nañ ci dara xew-xew yi am Jañeel maire di fi teew kenn xamul nim tollu waaye xew-xew bu mu ñu teewul it nag yebal na ndaw yu mot ndaw ñu teew fi mu jëlas tuutam joxe ko amul benn xew-xew boo xam ne bu ma waxee bu ma yeboo mun naa la wax ne la ci diggante ñetti weer maire joxe na fi quatre cent mille jumaa ji cent mille école bi deux cent mille barke démb bu tey jii yëkkati at na enveloppe bu cent mille franc joxaat ko jajel barkaati démb am na benn gàmm murid fi am fii ni joxe na fa cent quinze mille kon na wax dëgg yàlla soo demee nga ne ko ñu ngi koy gërëm di ko sant nañ ko doon gërëmee démb ndax kat nit ki mun na te defut nit ki xam na te waxut waaye maire li mun mu ngi koy def koo gis mu ngi koy def koo gisut mu ngi koy def jañeel yëpp nag yëg nañ ne maire boole leen na ci boppam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax ci turu waa dëkk bi yëpp. lii lañ amoon nit kàddu yoo xam ne nii moom wax na ko waaye ñu tontuwaat nañ ko ci biir wax ji pour bu demee jotaloon ko maire waali enveloppe baa ngi nii Seydina Ousmane barakallahu fiik euh, délégation bi jógee Latmingué ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaanal maire euh, ni mu koy defee jëñal la koy defee fépp ci tund wi xemut ci gox bi sax day génn gox bi di ko fa def kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla taxaw yàlla yokk ko ci barke yonent bi sallam kon dafa am euh, benn kii buñ bëgg a présenté muy xale yi nga xam ne ñoo sol tubéy yu bule yi ak t yi dafa am seen kenn seen kilifa yi koo xam ne daf koy jëfalanteek ñoom ci gàmm euh, kaamil gu toll kaamil gu ñëw muy sengan xale yi nag ma bëggoon ngeen ñëw nii taxaw ñu dëkk bi yëpp gis ko wax dëgg ñu sant sengan gërëm ko ñaanal ko yàlla ak tant bi noonu la ciy def Ousmane nee na ak tant bi ak sonorisation yépp wax dëgg lii rek la nit mënal mbokkam kon xale yooyu dañ noon dañ bëgg a sant Senghane gërëm ko ndax kaamil gu nekk nii lay def ak ñoom te du leen laaj dara ngeen ñëw fii ñu gis leen su ko defee ñu ñaanal leen ñaanal Senghane mi nga xam ne moom moo koy taxawee moo koy def at mu nekk gis ngeen ñoo ngi nii taxaw sengan ñëwal ñu gis kan mooy sengan wax dëgg lii soo demee ci daayira yi dañuy cotiser di ko def waaye yow nga yëkkati sa xaalis defal leen ko te chaque année nii nga leen koy defalee kon nag lum lii mënuñu lu dul nena ngeen taxawee nii ñu jóg jakarlo ni ak yeen wala ni mu ne ni ngeen di jakarlo caméra bi sengan doomu sama ni yaay alaaj njaay la ana sengan ñëwal bok ci film bi Seydina Ousmane waaw kon alhamdulilah comme niko ko waxe rek Senghane ñu lay gërëm di la sant yaak sa kuréel gi nga xamne yena and a ànd koy tuddee les 3D Diagnel Day Dem dafa créer ben groupe 3D Diagnel Day Dem pour lu bax rek jëmee ci dëkk bi lolé nak ci la initier li pour def ko ndax li fi ni fo dem fekk ko fo muy li nga xamne ni ñooy ànd di ko def ci gox yi Senghane ba tay bash bi loxom jógu ci ndax at yële passé dañ doon baas di tekkee ka takk waaye xool ba mu ko xoolee xam ne gis na moromam ñi ni def lu mel ni ci yeneen gox yi si la initié lii deux ans yëpp mooy ba mooy la du ñàkk participation waaye lu tuuti lañ cay participer la ca des moo koy def ndax dem na ci presque cinq cent et quelques mille ou cinq mille yoo xam ne mooy base beeg chaise yeeg sonorisation bi moom moo ko def xam naa ñu ko ca fekkit lu néew lay doon kon Senghane ñu lay gërëm. nga la ngalaama ndax kat kuñ ne kuli sa baay ñu ne alaaj njaay alaaj njaay kuy bayam ñu ne mbeñ jóob ah yaakar na ne bo defut dañeel lu bax itam boko defé fenen ya nga ñak comme niko ko Omar waxe won li nga wara def nga def yalla la yalla fay mm-hmm. waye itam batay mo amar amaat yo xamne xam lañ dëkk di doomu dëkk bi ñom itam ñu créer benen groupe ñom itam wax na jañeel ca kanam jañeel day dem ak jañeel ci kanam kay buñ pousser jañeel wara dem ñoñ itam ñu ne nag ñu nit gis nañ suñu papa yi di cotiser di jënd nak di def ndugu waye ñun am gamu gu jot yoral nañ leen nak nañ ko defé won daal non lañ ko refee as mais moy sen représentance jotaay bi kon daal ci gattal xalé jëñal ñu ngi góorgóorlu pour jappalé wa jëñal ñu ngi góorgóorlu pour dimbalé jëñal ñu ngi góorgóorlu pour dimbalé sen bop yal leen yàlla yok di leen ñaanal ngeen ando jubo don ben lu ngeen bëgg rek yàlla sotal ko ñu ngi sen gannaaw nak gannaaw bu ngeen boolooyee don ben, allahumma salli ala sayyidina

mu ne fa kaafi uuhu mu ne ku la defal njëkk mu ne nanka ko fay mu ne soo lottee ci fay ka nanka ñaanal yàlla lu tolloog lim la jëfal mu ne soo lottee ci ñaanal ka yàlla mu ne nanka siiwal nanka tudd ba ñëpp xam ne defal na la teraanga yaa ngi koy fay yaa ngi ñaanal mu ne yàlla nee na cant ak jaam mu ne mënul maa saf ndere kama doxal xewal ga mu jaare ca loxoom ne mu sant koo ko ba pare doora ñëw nag ci man yàlla kon lii nga xam ne ñoom sengan taxawee nañ ko ñoom aas ak ñeneen ñi ànd ak ñoom ñëpp ne nay rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane mu ne lii duhut ngistal ne ku la jëfal lu baax mu ne nga fay ko soo ko mënta fay ñaanal ko yàlla soo ko mënta ñaanal yàlla ne na siiwal ko publicité te saare ko bu ñëpp dégg ne di kooku defal na la teraanga kon jërëjëf sëriñ bi léegi dañuy jéem a continuer programme bi waaw parrain bi Makoddu Njaay moom lañ parrainé woon jataay bi kiy jar